waral sa xalaat. da ko wóoluwut ci parti bi ba pare bëgg ñu wóolu ko ci réew mi xanaa ñun dañoo sël mu jëmale kaw <laughs> wala APR moom moo gën Sénégal quoi Amadou Ba yow Macky Sall xool na ko ba ni kii amul capacité. waaw doon na ma ci APR. amul capacité diriger sama parti bëgg ko wutal capacité yu mu diriger Sénégal ñoom dañuy patriote quoi. Mm. ñoo la gën a xam ne waa ji capacité am mayu ko mu diriger Sénégal. capacité am tamit capacité am tamit mayu ko mu diriger APR te Macky Sall. du sël mu jëmale kaw du jël parti bi di ko jox mag Amadou Ba. te loolu signe de defet la parce que booy xool Macky Sall bu xamoon ne Amadou Ba day nekk président de la République lu doon problème ci moom mu jox ko parti bi mu gouverner ko parce que xam na ne Amadou Ba bu falu woon tey tey tey bu soxlaa APR bokk na APR pare def ministre miti miti euh, congrès investiture lay def rek ñu investir ko. Mhm. <laughs> ñu wateel ko rek mu jeex mu jël mu jël parti bi mais dafa xam ne kii opposition la jëm. te Macky Sall dafa am ay mbir yoo xam ne gis nga bu politigul bu si jógee opposition balaa ngay. Amadou Ba opposition la jëm. Oh, te buy dem ak buy dem opposition yóbbaale APR léegi ñoom ñaar kan mooy diriger ñaari opposant lañ. <laughs> Macky Sall dëgg Macky Sall Macky Sall xel mi daa neex de <laughs> te Macky Sall moom mi ngi yaakaar ne bu bàyyee day tëdd Macky Sall du bàyyeegul de. bàyyeegul ay mënul mënul génn ci politique bi. bàyyeegul. billaay mënu ko. bokkul ci président yi nga xam ne bu fekkee dañuy def analyse bu fekkee dañuy def analyse politique rek vrai. waaw. Macky Sall mënul génn espace politique. yan signe la def yoo xam ne moo la wan ne kii pareegul pour bàyyi. non pare na ko Macky Sall. Hmm. boo xoolee Marème ni mu retiré affaire am ak ni mu retiré woo ngay xam ne ñii pare nañ. ñii fondation beeg yooyu pare nañ ñii pour génn ci espace politique bi. mais gis nga ku leen mën a remplacer ak ku mën a doon nag laa wax ah ñoom dañuy politikaat. environnement bii ak problème yi fi Macky Sall bàyyi politique moo ko ci mën a génne mais justice nii mënu ko cee génne te am faawu coow am. coow bu demee lan ginnaaw Macky Sall. coow bu demee lan coow day am. coow lan coow police coow tribunal. non il faut coow am coow dina am seen biir coow dina am entre moom ak président bi falu loolu ñaar yooyu day am. Mm. ñoom APR ci seen biir xam nga wàdd bi mu toogee bi muy doog a daanu. mën ngaa wax ne 2012 ba 2013 ñoom ñoo doon mbëkkante ci seen biir. Pape Diop daa rey poone diw nang loolu lañ doon def quoi. Mm. bi ñu xeexee seen biir ba gësamu ba taxaw après nag la Macky Sall doog a ñëw nag dal ci seen kaw même chose ka nag ak liy am nii parce que Wade bi muy bàyyi dafa mësul préparé na Macky Sall fay koy doon. Mm-hmm. comprendre nga ba pare dafa xeex di xeex di xeex ba jeexal nguuram loolu moo tax nguuram premier tour Macky Sall premier mandat wu Macky Sall moom daa metti ci dem na ba wadd ñëwaat ci place de l'indépendance ba nga xam ne ba mu fa gëjee kenn xamul kan ne day xeexaat mm-hmm. doonte quatre-vingts ans la am parce que environnement bi moo ko imposé gis nga Macky Sall foofu lay dem parce que xeex bi mu déclenché nii fi mu ko xeexee moo baaxul mm-hmm. su ko gañee da koy topp su ko gañewul da koy topp te su ko gañewul ay pour ay dossier judiciaire lay am il faut mu gaaw wut ab parti moom tamit euh, maanaam parti am dem wuti ay député gis nga Karim Wade bu fi nekkee tey bañ naan ñu ngi koy réintégré. waaw cela veut dire que PDS gi mu téye la dafa téye PDS bañ a bàyyi. Mhm. gars yi naan indi indi indi mu lànk léegi loolu mooy tax jékki-jékki ñu ne PDS am na ñaata 24 député. waaw ah ku am vingt 24 député mais état bi fi nekk dina wax ak yow. loolu moo tax Karim Wade tey maanaam bu ko neexoon tànk bu ko neex lay fecce tey parce que ci politique la jaaraat nekk fi. Macky Sall ci politique dong la mën a jaar mais Macky Karim Wade bu doon bu doon bu doon dossier judiciaire rek heure bi lem nañ ko bu yàgg kon ba léegi sax du génn prison parce que dossier bu mu génn mën nañ ko indilaat beneen makki Sall bu jeexalee dossier judiciaire yi bu démarré day politikaat dina ko fekk mu yor xaalis dina ko fekk mu na naa fekk yi ko topp bàyyi ko ñim dese mu jéem a dem ndax dina yomb ah mën na yomb mën na jë mën na jafe mais mooy am de même bu doon am cinq députés moo koy gënal mu toog këram coow la di ko fa fekk. Mm-hmm. politique dafa garaaw boo gisee Karim Wade ragal a ñëwaat Sénégal nguur boo ko ñàkkee ba noppi da ngay xaw a dof. parce que dafa pareegul wala dafa. ah non trahison. <laughs> billaay Karim bu la waxoon li mu ci trahison ci àdduna mm. doo ko gëm. ñu ko ko teg. mais boo yoree nguur ñëppay ñëw. dégg naa Bécaye Mbaye naan naafiq yeeg fenkat yeeg tappalekat yeeg ñu baax ñi ñëppay ñëw. léegi nag bu nguur gi jeexee naa feq yi dañuy dem tappalekat yi dañuy dem mais nan nga mën a comprendre wàdd jógee Europe ñëw bàyyi fi ñëpp dem dal biir kër ma dikke ñaa nekk biir kër ma dikke ma dikke dem moom déclaré candidature am <laughs> te déggoowu leen ci <laughs> loolu noo ko mën a comprendre loolu mooy état d'accord léegi nag dafa garaaw Macky Sall nag nii ma gisee affaire yi man hmm. moom mi ngi bëgg comprendre ne moom bàyyi na bàyyi na waaye politique mu ngi ko bàyyiwul mhm. waaw léegi nag day ñëwaat de. amul choix di nga ko gisaat place de l'Obélisque di nga ko gisaat mu battre campagne di nga ko gisaat mu duggaat ci espace politique bi di wax. Mhm. parce que loolu rek rek rek la mën a def pour pour nekk fi pour mucc tamit mhm. waaw. Euh, ci Amadou Ba maa ngi laaj léegi ndax am nga yaakaar mu gagné nga wax waxu deuxième tour. Hmm. ndax da ngay yaakaar fi nga toll nii. ne Ousmane Sonko amul dara lu koy tere bokk ci élection présidentielle yi. ah man de ko xam lu ko ci tere tere bokk la nga wax ma ko waaw ah, ñoom ñi la daan wax du bokk sax. seen dossier yi ñu perte lañ ko yaakaaroon. waaw mhm. ah, ku la mës a wax Sonko non du bokk du bokk booba ko yóbboo justice gañe ko xamoon nañ ne ko yóbbu justice. moo tax du bokk bokk yépp loolu la woon ñoom dañu jàppoon ne rek. ni ñoom defoon nañ ne lem nañ magistrature bi ba téye ko Sonko dinañ ko yóbbu ci kanamu siis te bu ñu demee siis bi dana danañu jox dëgg kon du bokk loolu dañ ko doon gis nii nga gis ñuy waat ngi wax nii du bokk ñëwal ñëwal du bokk mais léegi nag koo xam ne da nga woon bu ma ko yóbbu siis gañe ko du bokk léegi yóbbu nga ko siis mu gañe la xanaa kay léegi di nga d'accord ne dina bokk na loolu lu koy teree bokk ci élection laa gisul ah, dina dem yaakaar ci conseil jàppal ne daal dina déposer candidature am te conseil constitutionnel dina ko nangul candidature am mu nekk candidat voilà te bu nekkee candidat nag danañ xam ne ba si góor a koy bay. maanaam ci leeral bu nekkee candidat mooy lan. <laughs> ñu bari dañu naan bu nekkee candidat ak midi carte gi jeex. da ngay dëggal kàddu yi Sonko sax moom midi la wax gaa yi ne ko on heures. Ah. <laughs> waaw gaa yi wax nga ci dëggal kàddu yooyu. non man nag loolu gëm naa ko. Mm. mais bëgguma waa Pastef gëm ko. dama tax bëggoo ñu gëm ko. naa naagu daagu ku daagu ñu romb la dama bëgg ñu gagné élection yi ak quatre-vingt-dix pour cent. moo tax dañ gëm ni rek élection la ku liggéey gagné mm-hmm. nañ gëm loolu rek bu ko defee mën nañoo jëlee élection yi ci soixante dix pour cent yóbbu ko ba gagné ko quatre vingt dix pour cent loolu day tax kenn dootuñu yem bu ñu yoree nguur gi légitimité totale totale ngay am mm-hmm. voilà xam nga euh, yaa ngi wax sànq ci lu jëm ci Ousmane Sonko ni mu mel ak ay qualité ñu bari yaakaar ne tey bu jëlee nguur gi mën naa am fayantoo wala mu ne fi traque des biens mal acquis amoon ak yooyu xalaat nga lu ni mel. Sonko jël nguur gi di fayu. di hmm. jàpp di tëj di xool ñu sàcc ak. loolu mënul nekk xam nga lu tax dafa incohérent ak discours bi sun ko jaay sénégalais bañ topp ko te gis nga nit bu la tooñee nga fayu yem ngeen loolu moom danga ko xame noonu nit hmm. saa bu fekkee mu tooñ la mënoo ko muñ nga fayantoog moom yéen a ngi yem. li am solo mooy poursuivre ay nit parce que dañ ma doon def nangam wala nga dem kër nit di ko barricadé waat comme na nga doon barricadé wala nga dem jël ay nit di yóbbu ci yoon fekk yaa leen tooñ mais da nga bëgg rek fayu li ñu la defoon loolu moom mën naa waat ne Sonko ëpp na ko alalu ak gaa yi nag yu ci bëri dañoo bari kër seeni suuf yu ma xamut yooyu nag moom man mënuma si wax dara mm-hmm. man mënuma ne Sonko dana dana gis nit ñi tappale mu bàyyi leen ci tappale gi. wala du ko def wala dina ko def waaye li ma gëm daal mooy Ousmane Sonko moom li ma mën a garanti mooy état de droit la woote. état de droit lay teg état de droit nag moom comme topp yaa tooñ. comme bàyyi tooñoo loolu daal xam naa ko. mais Sonko wootewul que man damay fayantoo te soo toogee ak moom ah waxtaan nii. Mm. ngay doog a xam que ne kii loolu nekkul sax ci boppam. candidature Bassirou Diomaye ah. Faye noo ko gisee. man man mas naa ko laaj <laughs> Sonko mas naa ko laaj ne ko yow boo toogoon nooy def Macky Sall. lu mu la wax. ma la ko wax. waaye ah ko ko wax nag. du ma ma la ko wax. da a tiital Macky Sall. da ngay bañ a loolu lu ma ju mas di waxtaan ak moom rek tooñ ko rek ne ko boo toogee ñuy def nii hmm. soo toogoon noo leen def mais li ci laa xam ne kii moo tax ma mën a waat ne kii moo gën xol ci àdduna donc mën nañu njort ne. non dama ne la kay lim ma tontu laa dama ne la man moo tax ma ñemee waatal alxuraan Macky Sall ne ko billaahi wallaahi wa rabbul kaabati mhm. mbooleem ñiy politique ci Sénégal Sonko ci gën xol. wala ku ko ci gën xol boog fanaanu ci. d'accord man loolu laa laa parce que man xam na tontu nit ñi mën nañoo xam lan la lan la tontu. non nee naa la Sonko bonul soxorul du fayu du fayantoo dégg nga. Mhm. te <laughs> Sonko keneen la am na lu nga xam ne affaire personnel la day laal ay biir kër laal ay toog ak say xarit di waxtaan yooyu doo nekk kilifa di ko ko génneel. waaw bàmmeelu bi la ci. mais gis nga mës naa mën naa la wax benn affaire bu boo xam ne du la ko wax ni mu ni mu demee. mais dafa am ku ku ku toog nii rek di tooñ rek di tooñ El Hadj Diouf. waaw di ko tooñ nii quoi di ko saboote rek mais Sonko du ko wàññi. da ko téere bul tudd jàmbur fii bàyyi lii. ak li mu koy wax yëpp. te yàlla xam na ne loolu bi mu amee ak bi ñuy jàpp Sonko matul quatre heures de temps te ki Sonko wax loolu Sonko da ko rus man xam naa ko. bi soo yi wax ki Sonko wax loolu.